ci njëlbéen gi ñu euh, commencé yenn ci euh, point yi nga xam ne rek euh, moom la ñu fas yéene waxtaanee ci émission tey ji ñu door rek ak. Euh, réplique bi nga xam ni moom euh, Abbé Latyr Ndiaye daf ko def euh, ci kàddu bi Ousmane Sonko yëkkati yàggul dara moom nag mu jàpp ni moom ministre bi la daal en tout cas war na gën a defaraat ay kàddoom maanaam muy gën a am yar ak i loole nag jur na coow yu bare bari ba tax ñenn ci jàngu bi sax génn nañu mel ni ànduñu ak ki nga xam ni mooy Abbé Latyr Ndiaye naka nga jàngee def sorte bi nga xam ni tey Abbé boobu def na ko gannaaw ba Ousmane Sonko xam leen ni accepté réew bu ci mel ni Sénégal euh, ñu fi euh, tere euh, yenn ci élèves yi nga xam ni dañu opté pour muuru ñu am accès ci yenn école yi. bon déjà damay ñëwaat ci discours abbé abbé bi mm-hmm. parce que bon on bi il parle de respect mais nu mu ko nu mu nu mu bindee foofu y a pas de respect. la formulation yu mu utiliser foofu kuy wax ak kilifa mu loolu ce n'est pas respectueux ni mu waxee moom c'est même du genre du dénigrement te pourtant su su su su ne Ousmane Sonko c'est un jeune politicien peut-être que c'est un jeune politicien promu récemment mais en dix ans il a fait ce que personne n'a fait en dix ans il a créé un parti et en dix ans il a réussi à renverser un régime super puissant ba ba ba instant bi nii à la primature donc su ne c'est un euh, jeune politicien récemment promu y a y a du dénigrement dafay mel comme si du genre ni que yow yaa ngi soog a ñëw xale nga. Mhm. donc euh, le discours déjà la formulation c'est elle est sentimentale et émotive sur le fond. xam-xam bi bëriwul bon on on sait que nag les hommes religieux de ce dans ce pays ce sont surtout l'église mhm. ils ont am ay connaissances yu poussées ak yu xóot mais man boo ma gisee liiree abbé bii lu mu bind dama xaw a jaaxle maintenant sur le point kii de discorde wala du genre nii que euh, coow bi indi euh, kii ci wax yi indi coow bi foofu euh, Ousmane Sonko a parfaitement raison de dire ni que duñu nangooti benn personne que nit ku sol voile ñu koy dax école mais la loi la législation au Sénégal interdirul kenn interdire le port du voile. Mm-hmm. la liberté de culte moo am ci biir dëkk bi ni nga mu amee droit sol voile mais noonu nga amee droit takk sa croix. effectivement. donc mais lan moo war a tax ñuy jël ay nit yi di ñëw di sol voile am ni ko naan yow waroo jàng parce que da nga war a sol sa voile su bëggee jàng si da ngay sa voile bi pour quelle raison. j'entends gis naa ay nit yu doon ne ni waaw c'est le règlement intérieur mais la loi est au-dessus du règlement intérieur ñoom maa ngi wax ni leen dem xoolee des normes. Mm-hmm. il yi nga xam ne qui se passent dans soo xoolee nu les écoles privées catholiques 72 pour cent d'élèves effectifs ay doomu jullit leen. Mm-hmm, mm-hmm. ñoom ñoo fa yóbbu seen doom yi. jullit yi ñoo fa yóbbu seen doomi yi. ce pas ay question de waaw di ñëw di kii julli euh, prix euh, école bi lii la wala mais on nous on vivre ensemble. il y a pas de mm-hmm. sectarisation. maanaam amoo ñu ñun suñu yi na jullit yi nekk si seen école yi na na na na yi nekk seen école yi loolu amul Sénégal nous on n'a jamais eu de problème de religion. mais parfois tu vois sax dans les discours am na ñi nga xam ne amuñu fit wax loolu mais loolu lay dund si suuf mais est-ce ni Habib bi génnul un peu ci cadre fi nga xam ne fi la Ousmane ko doon waxee tey boo dégloo discours maanaam li Ousmane ko wax ak fi mu ko tontoo est-ce que ay euh, jàpp nga ni xëy na euh, fi mu ko tontoo fi la Ousmane Sonko doon waxee réellement Habib bi il a bizarrement il a suivi la le même discours que Barthélémy Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz parce que suñu fàttaloo ko bu baax Barthélemy Diaz moo ñu ko wax Barthélemy Diaz moo ñu ko gën a wax nii que Ousmane Sonko dafa bëgg a diviser dafa bëgg a diviser dëkk bi ak les religions lui il parle du port du voile à l'école mais port du voile à l'école lan moo war tax ñu yóbbu ko ba ci affaire de diine. da jàpp ni Barth dafa am influence ci ci ci xëy na sorte bi mu. je ne sais pas fekkewu ma xaw ma mais ñoom ñaar ñëpp ils ont à peu près le même discours. waaw te Barthélémy yëpp koo xam Barthélémy jamono bi ci lu muy dox xam ni on on comprend pourquoi il dit cela mais moom bisam dina ñëw instant si mos a egg. mais mais Abbé bi Abbé bi ce qu'il dit ce qu'il dit nous on Sonko n'a jamais parlé de religion dafa nekk xale yi dañoo war a ku sol waaye dootuñu nangutuñu ko fi daax mais loolu ñett yoon dafa am ci Sénégal. Mhm. ñaata yoon nga gis ni que mais amoon nañ fi benn problème ba gars yi demoon pour protéger parce que ñoo day dàq xale parce que xale yi amuñu droit sur le voile. Mm-hmm. yow tu au Sénégal un pays à quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans qui n'a aucun problème avec les autres minorités religieuses ñu ñoo ngi ci jàmm. yow nga bëgg ñoo di indi ay problème yi nga xam ne ça ne correspond même pas au Sénégal. nga ay mm-hmm. réalité occidentale mooy France problème mu France parce que France moom la négation de la religion lañ jël négation de la religion c'est-à-dire que ñoom bëgguñu diine lépp li nga xam ne dafay renvoyer ak diine dañ koy dàq. Mm-hmm. nga bëgg jël problème yooyu bëgg ko indi biir Sénégal. alors que ñoom ci seen réew am nañu fulla gu euh, toll nii ñoom li nga xam ni moo fa nekk comme seen ay valeur ku fa ñëw da nga koy respecté. waaw soo ñu soo demee France jege déjà. temps yi wax nañ ko abaya kenn bi traditionnel abaya ah euh, kenn bi traditionnel bu ne ça renvoie à la religion musulmane kon ne koy tere ci école yi mhm. kon kenn amatu trois sol abaya bu pour ñëw jàng si ñoom ils sont dans ce qu'ils sont seen góoru ñaari galon yeeg ñoom seen pardon góoru ñaari galon yi <laughs> waaw ñoom <laughs> waaw loolu moo tax ma ne ñoom ñoo ngi ci lu ñu nekk mais ñun dañu war a nekk ci lu ñu nekk waruñu jël ay problème yi nga xam ne France xaw ñu bëgg ko implanter Sénégal fii cinq temps daaw xam nga daawaat ci géej amu woon ñi nga xam ne dañ leen naroon dàq ndax bu dama bëggoon julli seen biir ba bërëbu liggéeyukaay. Mm-hmm. pour quelle raison pour quelle raison ñu war leen nag di teg ñu ñu war a jël ay réalités yi nga xam ne correspondent ñu ko bëgg a suñu dëkk. ab man abbé bi dama jàpp ni que c' est un peut-être que c' est un politicien wala qui ne pas Ousmane Sonko mais man quand j'ai lu sa lettre moi da nga jàpp ni moom euh, xëy na dafa am lu mu dencal loolu Ousmane Sonko. ah en tout cas daal c'est un policier encagoulé. soo soo soo ko soo ko lii rek moi je dirais pas que c'est un policier encagoulé je dirais que c'est un nervi religieux. waaw man nag je n'ai pas aucun problème nervi religieux je avec l'église wala avec les les chrétiens. parce que ñun jullit yi. ah dañuy njëkk a xamal sama yonent yàlla insa mhm. je n'ai aucun problème. Mhm. dañ ko war a gëm sax. non soo ko gëmulee doo doo nekk jullit doo jullit. effectivement soo ko gëmulee doo jullit. Mhm. waaw loolu loolu dafa leer j'ai j'ai des amis chrétiens je n'ai aucun problème waaw. man ni may ànd ak ni ma amee ay copains chrétiens nan la amee ay copains musulmans je n'ai aucun problème mais fii il faut pas tamit que ñuy dugg nii que nit wax benn wax parce que dafa sol benn yére soit euh, mooy yére nitu diine ñu war a mu war a jël nit yére nitu diine bi wax ci moom parce que Sénégal ta tàmm nañ tamit que day wax mu tuddee ne ah man sëriñ laa wala man labbe laa kenn waru wax ci man. Mhm, parce que soo mhm. waxee ci man da ngay attaqué fi ma bokk. non moom moo wax ay waxam. Mhm. donc dañu si a dindi abe bi sax waaw jaar ci turam. fi mu waxee ñu tontoo ko fa waaw fu mu waxee ñu tontoo ko. te moom ci biir kàddoom sax bi ngi dem sax bay wax ka wax ka ni ñun suñu yonent bi xëy na ku ku ragal moo taxoon mu gàddaay. parce que non loolu si loolu mhm. yi nga xam ne moom moo ko moom su amee kii na ko wax ba mu leer na leeral waxam boobu mais moi je rentrerai pas dans ce genre de débat <laughs> parce que ce sont des débats yi nga xam ne ki na du indi dara lu lu lu lu ñu jëmloo ci kanam. Mhm. mais le Ousmane Sonko li mu wax mais il fallait crever l'abcès mais fii Sénégal ñëpp xam nañ que fii y nga xam ne soo fa dugalee su doom su solee voile duñ ko nangu wala suñu gisee ne xale bi suñu xamul ni que xale bi day sol voile ba ci biir dañ koy dàq mais wax ko pour régler ko. 72 mm-hmm. pour cent des effectifs du privé catholique ce sont des musulmans mais la liberté de culte elle est consacrée pour tout le monde. Mm-hmm. ñuy waroon nangoo ko xale bi di sol voilam di dem jàng ji. noonu lay nangoo ko xale bi sol Coran dem jàng ji. effectivement. fii amul kenn ki nga xam ne ni sa diine war na war a tax nii que ngay subir ay sanctions wala ñu lay teg ñu lay marginaliser wala ñu lay teg de côté en dehors de cela euh, Ousmane ko parle aussi du fait ni des handicapés des handicapés que ñu ñu war a jël. Mhm. mais loolu mooy ma maanaam ñëpp lañ luñ fa bëgg a wax mooy ñëpp toute personne vivant au Sénégal mu am handicap muy sol voile muy sol croix. ñoom ñëpp dañoo war a dem jàngi et on doit mettre en place des installations nécessaires pour des personnes qui ont des handicaps. Mmh. on doit accepter les personnes qui ont des qui portent le ah, leen di bàyyi ñu dem jàngi comme xale bi sol kuraam ñu bàyyi ko mu dem jàngi ji mais c'est ce qu'on c'est ce qu'il dit. Mm-hmm. maintenant nag que li muy wax ni quel est le rapport li muy wax ni ak waxu ak diine. ñu naan nii dafa bëgg a takk indi ay problème ci diine bi c'est dafa am ay seetaane yu nekk ci biir dëkk bi nga xam ne il ne cherche que des problèmes. suba ba ngoon ba guddi jot ñoom dañuy jéem a xool lan fan lay mën a jafandoo ah, pour mun a exister parce que ce sont des yi nga xam ne ils n'existent plus wala ils sont morts politiquement wala li ñu yor heure bi moo jotagul rek. mais am am am na ñenn ñi am na ñenn wax ñu fere ci société civile par exemple naan xëy na Ousmane Sonko maanaam régime bi le tandem qui est en place war nañu revoir seen communication parce que des fois euh, dafay am ay couac yu xaw a bari yoo xamante ne mi ngi bëgg a fréquent. quel genre ban couac ñoom ban en ah, du du du kii pour donner des leçons. Macky dégg nañ ko mu yëkkati kàddu yu mel noonu. mu mu ne la Macky Sall ba mu fi nekkee mais ñan ñoo ko fi doon taxaw di koy jox ay leçons de morale. comme moo fi amoon cinq cinq ñi fi ñu si bëri ñu fi doon wax ni dañoo noppi woon. Mhm. daan ñu si woon dégg kenn parce que Macky day dooree di tëjee. ah ñun on est dans la diplomatie loolu moo tax ñu foog ñu foog que fii c'est le laisser aller et le laisser faire waaw <laughs> mais y a des sujets nga xam ne mais suñ ko waxulee suñ ko mettulee sur la place publique dinañ ko mos a régler mhm. mais fii Sénégal y a plein de sujets comme le port du le voile nga xam ne xale yi dañ leen di dàq mais loolu il faut ñu wax ko y a d'autres sujets y a d'autres sujets nee naa la sànq fii y a des entreprises nga xam ne foofu dañuy tere nit yi di julli seen biir entreprise yi au nom de quoi ñoom dama bëgg a jël léegi nag di créer ay lois au-dessus de nos ñoom ñoo bëgg jël règlement intérieur éco établissement bi ne règlement intérieur établissement mu mu suut les lois sénégalaises ñoo bëgg a créer état dans l' état désordre bi amoon bi indi woon situation bi loolu on va dañoo ne dañoo jub jubal jubanti. Mhm. jubal jubanti mooy crever des abcès ay abcès yi ko war a crever ñëpp mun a dëkk bi mun a tegu ci yoon. effectivement mais tu peux pas construire nga xam ne alors y a des problèmes yi nga xam ne personne ne va en parler tout le monde nag la démocratie sénégalaise elle a une spécificité. muy lan dañuy xuloo xuloo waaw ñu moom mais du tee ñu ànd waaw dañuy xuloo mais du tee ñu ànd dañuy xuloo wax li ñu waxante ñu waxante dëgg après ñu tey ànd du tee ñu après ñu ànd continuer ànd mm-hmm. c'est ce qui s'est passé du avant les élections gis nañu que gars yëpp newoon nañu Sénégal day tax mais jour les jours les jours de l'élection on a donné une leçon de démocratie à tout le monde mm-hmm, mm-hmm. suñu xuloo bi nag xuloo bi du question de diine question de xale yi ñëpp muy handicapé muy kuy sol voile à moins kuy sol croix dañoo am droit accès aux écoles. Mm-hmm. wax bi yëpp loolu la ba noppi yow ci peux pas avoir un effectif bi nga xam ne c'est 72 pour cent de ton effectif qui sont des musulmans nga bëgg a teg ay règles qui les marginalisent. effectivement. c'est pas sérieux. mais mais la la sortie wala la réplique de euh, du professeur Cheikh Omar Diagne. Euh, texte bi mu bind en tout cas ci cappaandaw gi yëkkati njëkk yëkkati na ci kàddu yoo xam ni xaw na xaw na xoromu tuuti mais xëy na ñenn ñi eh, jàpp ñi daal en tout cas tontu na <laughs> abbé bi bu baax a baax parce que eh, booy xool sax mi ngi ko ci fàttalil ken yi wala di ko ci wax ken yi eh, yaakaaroon na ni moom xëy na li ko waroon a gën a mën a déranger mooy ñi nga xam ni dañuy sol ay ay ay ay zip yu gàtt ka ñi nga xam ni dañuy dañuy voilé wu est que jàppoo ñi tontu boobu itam xëy na xaw na diis tuuti par rapport ak tey kàddu yi nga xam ne abbé bi daf ko yëkkati. soo liiree la sortie de l'abbé par rapport à ah bi nga xam ne y' a carrément un manque de respect envers le premier ministre ah, parce que kilifa même soo annulé nit ki y' a l' institution qui représente institution bi da nga koy respecté ak nga la réponse du professeur Cheikh Oumar Diagne par rapport à l'abbé ak ce qu'il représente derrière foofu tu vois qu'il y a un respect amul benn kaddu bi nga xam ne c'est désobligeant wala si kii parfois nag mu sañ la pic parce que ku xam xam ni que il a sa mm-hmm. la plus Abbé Abbé bi il a été discourtois parce que yenn wax yi soo ko waxee c'est un manque de respect client il a il, il a il a amené le cadre scientifique il a répondu dans le cadre scientifique. Mm-hmm. ba ba bu dugal ko dans le cadre du tasawuf ah boo noppi wax ko ni que y a des yi nga xam ne nii ah, war nga war nga ci mm-hmm. wax. boo mm-hmm. noppi moom abe bi moom. ak ak point de convergence ak euh, divergence yi nga xam ne am nañu. les points de convergence il a rappelé ni que les religions les les religions réelles ñun ñëpp ñoo ñoo ànd si on a nos nos nos pratiques. Mm-hmm. man ce que je voulais te dire léegi mooy abe bi moom. su dee moom jugeant ni le voir histoire revoir Ousmane Sonko moo ko dérangé mais France ouverture Jeux olympiques ah représenté ko par une femme ki est non seulement juive ba noppi elle est lesbienne ñu teg ko foofu. jël mhm. ay droite drag mooy ay góor yi nga ay travesti ah ñuy représenter la table servie. te déggoo ko ku ci wax. ñu jël benn ji benn kii plateau repas bi ñu teg foofu benn drag bi nga xam ne il bu ñu peinture en ak yeneen ki yeneen ils ont tous les sacrements tous les fondements de l'église catholique léon jël foowee ko tasaar yu yàq deram mhm. amul kenn ku ci wax ci ñoom abbé bi fu mu nekkoon ñëpp def silence rajo ci loolu ñëpp mu mu def silence rajo ci kenn dégg ko il n'en pas parlé pour lan mais loolu moo gën a garaaw julli de ba fi Charlie Hebdo jaaree moom ñëpp jóg am na benn tubaab bu ma seetaan ne tubaab bi ne na lii su nekkoon julliti kon jeux olympiques yi du yegg. waaw parce que dëkk bi mu ngi tàkk instant bi. àdduna bay riir hmm. mais yow yow li nga xam ne yow da nga ko gëm ñu jël ko piétiner ko écraser ko saaga ko parce que hmm. le fait qu'ils aient pris une juive ah ça dit en dit beaucoup ça dit beaucoup de choses. Hmm. le fait que ñu jël benn lesbienne ça dit beaucoup en plus ñu jël jigéen ñu saaga ko ñetti yoon. ñu teg ci plateau bi ñu fa nekkoon yëpp ah les apôtres ñu di def la ay drag ay ay ay drag queen ay maanaam ay nu mu ay travesti mhm. le repas ñu def fa benn jigéen bi nga xam ne dañ ko peindre en yow waxoo ci kenn déggula la kaasoo ci xuloo ci xeexoo ci commentaire oo convoqué woo aux journalistes defoo ci dara le premier ministre dit ne que on doit l'accès à aux à l'éducation ah mhm. ñëpp ko war a am il a parlé des handicapés il a parlé il a parlé du port du voile yow nga jékki-jékki jógee fee mel ne ku ñu say ku ku ku kii nu euh, kuñ ku ñu masse courant <laughs> mais quand même dañu wante dëgg. bind texte wu ju son son texte là c' était un texte déplacé et discourtois. d' accord la réponse du professeur Cheikh Omar Diagne quand il a commencé il a bien dit que moom il respecte l' institution. parce mhm. que il respecte l' institution que yenn yi egguñu fa. Mhm. waaw abbé bi na sant yàlla ni que le, le, le gouvernement ak nous nous avons beaucoup de respect pour l' église. à l' institution qu'elle représente. ndax su doon moom kese kese kese kese. kon coow bi dina gën a dégg dina dina waa dina dégg kii lu mu lu mu nar a dégg dina gën a garaaw li muy dégg jamono bi. d' accord <laughs> am na am na solo bu baax a baax ci euh, côté boobu ñu fàttali que ni yéen a ngi ànd ak ñun.